لك هلا daa leen ko wax di daa yàgg naa leen ko wax di da am taw taw rek ko may xaas la ñu am ñoom ñun fekk nekk nekk si liggéey xas nekk ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér a wér a wér yoo xam ne tawee ba ñëpp war ko bale xaas xaas ngeen am waxuma taw feex taw feex ku am na mbokk yu baax yi ñu topp ci xasida gu tedd gi di yaa Seydi yaa Moustapha yaa Sannada ngu mel ni démb kon ñi ngi dalee woon maa salaamin bi jami al ali wa sahbihi durrari wala ali sëñ bi doon jullee ci jëm yonente bi alayhi salaatu salaam di yàlla mu julli ci yonente bi bu ànd koog sëlmal waaye nag ànd koog mboolem waa këram ak sahabaam yi nga xam ne ak durrari wala ali dañuy mel ni ay wurus ak ay caq wurus nga xam ne durrari waxoon naa leen jamxo bi mooy durratu allah ali nag lam ci jublu rek nga xam ne maanaam euh, tey wurus caqi wurus nañu rafetee bu ko nit ki solee ci jëm moom na muy taaroo nga xam ne boo tasewoon moom guddi sax da koy xàmmi ngir leeraay ak melxati ga ca nekk loolu waxoon naa leen xeeti tagg la ndax sëñ bi dafa fonk saaba lool nga xam ne lii booy xool istihaara la rek dafa abbu loo xam ne mooy li gën a rafet rek mu dàkkantele ko saa saaba yi moo tax mu ne a durr dañu mel ni ay wurusu durr wala ali ak caqi wurusu durr nga xam ne dañoo mel ni ay caqi wurusu duru nga xam ne yoo xam ne dañuy melxati nga xam ne boo tasee ñoom guddi sax da leen di xàmme mu mel ni kon tey bi ngeen ñu toppee incha allah ñu ngi daanee woon ci ñu ngi daanee woon ci defe naa ne bi ñu mujjee ñëw mooy fu sëriñ bi radiallahu anhu doon waxe yaa saydi yaa xayra mursalin ilaa xalq ilaa il alamin si ilaa yow sama sang yow ngën ci ku ñu yónni jëm ci mbindeefi yàlla yépp yow mi nga xam ne yaay boroom xéewal yi yàlla na yàlla dolli xéewal ci yow bu defee kon tey ñu war a dalee ci musalliman mbir moom muy aji dolli xéewal ak mucc ci yow moom yàlla moom nga xam ne moo la yónni ci mboolem bindeef yëpp wa ma arsalnaaka ilaa kaafatan waaye nag maal xiyaari ànd koog tànneef yi nga xam ne alxubba da jaamoos nañ la yow yàlla nga xam ne yàlla bu doole xéwal ak mucc ba noppi mboolem ñi nga xam ne ay tànneef lañ waaye di jaamu seen borom tabaaraka wa taala xéwal gi muy salaatu wasalaam gi na ñëwaale ba ci ñoom moo tax mu ne moom yàlla ci boppam musalliman mbir moom muy aju dolli xéwal ak mucc ci kaw yonente bi alayhi salaatu salaam waaye nag boomu yem ci yonente bi rek waaye nag maal xiyaari ànd koog tànneef yëpp alxobba alxobba di ñi nga xam ne way jaamu lañ yàlla kama asala comme ni nga xamee ne noonu la dañu leen li xëyree mu jëm ci kudun man wobba di sama ñaaw mbir nga xam ne yàlla nun dañu leen ci man sama ñaaw mbir ñaaw mbir wax naa leen mooy baat bi nga xam ne dafa am ndongo li ko gisoon xamut lu muy firi mu ñëw ci sëñ bi di ko laaj sëñ bi na ko wëral téere yi nga xool fu muy nga xam ne dañ koy saraaxa léeg-léeg ci téere yi di wax lu muy sëñ bi ne ko xool ko mu xool ko ci téere ba sonn gisu ko mu ñëw wax ko sëñ bi sëñ bi ne ko xool ko ci mun jiit mu xool ko gis ko ca mu gis ñu ngi ko saraana ëy li muy tekke mooy soo waxal mooy ñaaw mbir mu ñëw wax ko sëñ tubaa sëñ tubaa ne ko mu ngoog bu fekkoon ne ba nga ko laajee wax naa la la muy tekki konoon loolu dalay topp ba ëllëg yomal xëyam te konoon man ngaa dee dugg safara ndax ñaawag mbir sëñ tubaa yàlla da ko defoon loo xam ne lu wax ci làmmañam rek loolu day topp nit ki bu fekkoon ne bi ku nit ki rek da ko wax ne ko ñaaw mbir lay tekki konoon kooke mbiram yëpp day ñaaw loolu moo taxoon mu ne ko yebal ko ci saraay mu di ko xool ba gis ko ñëw wax ko sëñ bi da koo xamal loolu moo tax mu ne kama asala comme ni nga xam ne moom yàlla noonu la dañu leen li xëyree mu jëm ci ku doon man wobbadi sama ñaaw lu ñaaw muy dellu siwaat lii ci man ahmadul qadim te loolu nag ilal jinaani ba kere may tàbbi aljana yàlla comme ni ne noonu la dañalee sama ñaaw ak mbir mu jëm ci ku doon man ci lurul muy sellalee moom yàlla bi ka ci sa daraja yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam abadan ci luy sax ba faw janaan yi sama xol nga xam ne yàlla naka noonu itam la sellee sama xol ci sa daraja nga xam ne ba keroog may tàbbi aljana sama xol lenn luy xeeti nëx-nëx wala lenn luy xeeti tooñaange wala lenn luy xeeti bakkaar wala ragal na ko sa daraja la ko sellalee moo tax mu ne wasafa te mu sellee moom yàlla bi ko ci sa daraja yow yonente bi abadan ci luy sax ba faw janaan yi sama xol noonee naka jëlee jëmmi salaatu salaam sotti ko ci kaw ci sa kaw ak mboolem ñi nga xam ne ay tànneef la ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla yaa xayra mursalin li xayri umma sala alayka wa kafaakal xumma yaa xayra mursalin woo naa la yow ngën ci ku ñu yónni li xayri umma ñu yónni la ci ngën ci xeet salaa yal na doole xul aleyka ci yow yow yonent bi wakkafaaka tamu fegal la yow yonent bi alxumma njàqare mu ne yow mi nga xam ne yaay ngën ci ku ñu yónni waaye nag ñu yónni la ngën ci xeet te mooy kuntum li naa si tàmmuroona bil maxrofi wa tanawna borom nee na yéen xeetu yonent bi salaay salaam ñi ne nga xam ne loolu faddalu taxsiis la nga xam ne defaluñu yàlla lu tax mu mbaaraam yonent bi rek la ñu rusee waaye ñu yàlla lenn lenn lenn lenn loo xam ne moo waral yàlla nañu yéene gën ci xeet yi nga xam ne loolu la ñuy wax taxsis fan lu tax taxsis la moo tax mu ne yow ngën ci ku ñu yónni waaye nag fañ la yónni mooy ngën ci xeet te téere mooy ngën ci téere yi te alxuraan guddi gu mu wàcc moo gën ci guddi kon boo ko toppee boo ko toppee lépp yónent bi alayhi salaatu salaam moo gën lépp nit ñi kon nag mu ne yaa xayra mursalin woo naa la yow ngën ci ku ñu yónni waaye nag li xayra umma ñu yónni la ci ngën ci xeet kon salaa yàlla na doolu ko la aleyka ci yow yal yàlla dolli xéwal ci yow wa kafaakata mu fegal la moom yàlla alxumma njàqare lépp luy njàqare ci tiis rek yàlla nañ ko yàlla fegal yàlla mi nga xam ne rabbun mooy ab buur karimun buy aji tedd naafiun tey aji jëriñi ji yàlla moom xat jalla féeñal na wa qadraka sa daraja alasima aji màgg la waaye nag wa qadraka sa daraja ja alasima jay aji màgg waaye nag xat aji la màggal na ko moom yàlla mu ne yàlla mu nga xam ne ci moom laa sàkku mu fegal la njàqare waaye julli ci yow kooku mooy ab buur waaye nag doon ku tedd waaye mooy ki nga xam ne mooy naafeexoon mooy aji jëriña ji képp ku am njëriñ mooy ki la waaye mooy ki nga xam ne moo feeñal sa daraja ba ñëpp xam ko ndax darajaam du la waaye nag gannaaw bañ xamee daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam nu mu mel ak a bon naka xam ne tuuti lañ ci xam waaye loolu yàllaa ko feeñal ci alquran moo nekk di ko tagg tagg na ko posone tagg wu ne ay cëram lépp moom mooy ki ko moo tax ne yàlla mu rabut mooy buur karimun bay aji tedd naafi'un tey aji jëriña ji xat jala feeñal na waqadaraka sa daraja ja alasim jay aji màgg xat aj jalaa waaye màggal na ko nga xam ne yàlla dafa feeñal daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye màggal ko moo tax léegi dañ naan ku tàggati sax dañ naan mënooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lu ko waral bu fekkoo ne fukk la maanaam ceer ba sax yow taggoo ko ndax parce que yàlla moo ko tagg moo tax suñu tubaab ne fa kay fa en vie matan li muxsi wal mat fu muy li noqalaay kon way way wayu xelu ñëpp lot nañ ci tagg yonent yi parce que dafa làq taggu yàlla borom bi tabaaraka wa taala mu ne yàlla moom musaliman biir moom muy aji dolli xewal aleyka ci yow xéewal goo xam ne fawqa adadi kawe na ak lim maanaam kenn du ko lim waaye nag bil aali wa sama moom yàlla wasaada ta mu dolli madadi sama xéewal mu ne yàlla moom mu dolli wóolu ci ci sa kaw yow yonent bi alayhi salaam waaye dolli wóolu goo xam ne kenn du ko lim day kawe ak lim waaye nag na ñëw ba sa waa kër ak say saabaam yëpp waaye nag na nga dolli li nga xam ne mooy sama xéewal nga xam ne am naa xéewal waaye maa ngi ñaan borom bi tabaaraka wa taala dolli waale ko yaa man li tasdiqika qad suqal qamar sala alayka man diqa fika amar mu ne yaa yow yaay ki nga xam ne yow yonent bi salaay salaam xat suqo moom yàlla de xotti lees na la alxamar weer wi li tasdiqika ngir sa dëggal kon nag sa salaa yàlla na doolu ko la alika ci yow man yàlla mi nga xam ne amar moo digle ba noppi bi xaf yi ka ñi di la xencu ci sa yoon yi te yoon yoonu siraatal mustaqim te mooy sunna mu ne yow de yow la yàlla xottil jëmi weer ngir lan sa dëggu rek xam nga yonent bi toggu toog rek xotti jëmi weer waaye ay yéeféer ñoo ko ñëwoon ngir gaarlu ko ko xam ngeen ne yéefit ñi bu ñuy laaj jëmu yonent bi lu mel ni muxjisaat nga xam ne dafa bokk ci muxjisaat muy xotti gu ko yàlla xottil weer wi te mu doon loo xam ne bokkoon na ci lay tegtale mandarga bis penc nga xam ne loolu dafa rot ci alxuraan ay yéeféer ñoo ñëw di ko gaarul dañoo jàpp ne manut ko rek dañ ko doon laaj ngir yëjji ko rek ngir dox dal ko rek waaye ab yonent lu mu ñaan yàlla yàlla du gàntu mu dal di ñaan yàlla mu ne ndax bu mu ko defee deen ko gëm mu dal di ñaan yàlla ñaan yàlla yàlla xotti ko weer ñëpp di ko gis nga xam ne tey masalan bu xotteekoon fii nii tey ci Kaolack boo wootee suba dakaar woote suba tuuba fu ne ñu ne ah ñun de gis nañ ko ñëpp teg nañ seen bët sunu baram xotti ko mu doon ñaari gaayit ñaari gaayit gaayit bii fii gaayit bii ñëpp teg ci seen bët waa màkk yi ak ñu nekkul màkk ba ci réew yi yeneen réew yi sax gis nañ weer loolu dafa bokk ci muy saat yonent bi saasam kon yonent bi saasam bañ ko koo laaj moom jàpputoo ne mën na ko waaye xam na ne yàlla tëliwu tara moo tax ba mu ñaanee yàlla rek yàlla xottil ko weer moo tax xeesaa itam gis nga kawteef bañ koy bañ ko laajoon jaaxaloon nañ ko bañ ko ko laajee waaye ba mu ñaanee yàlla rek yàlla indul ko ab taabul boo xam ne dafa bàyyi ko ci kaw asamaan mu wàccee ab taabul bi sun gaayam yi ñëpp xewlu ci taabul gi ba doyal moom allahuma rabbana antil halina maidatan a samay takunu lana xeedan li awlina wa aqirina waayatan min ko wartuxna wanta xew raat xen kon yonent bi ak dëgg tax nit ki da nga cee déggee ne boo xasee dëgg rek jeex na loo mën a ñaan yàlla yàlla defal la ko moo tax mu ne yaa man yow yonent bi yow yaay ki nga xam ne xat su ko xottalees na la alxamar weer yi ngir lan li tas diqa ngir sa dëggal rek a tax benn sabab rek a tax bu fekkoon ne dëggoo kenn du la ko xottal te konoon yéefir ñi danañ la weddoon loo ndax buñ la laajee buñ la laajee kawteef bu toll ni muuji saar xotti weer yi te mënoo loolu dañ la rusloo te danañ la ŋàññi ci màkk lu ne nga def ko waaye xoolal tey iqtarabati saahatu wansaqal xamaru alquran bis pénc jege na waaye nag ngir lan weeru xotteeku waaye nag ñoom yu yéefir yi màkk yëg wa in yar wa aayatan yuhridu ba ñu gisoon adduna ak lu ci biiram ci ay kawteef yonent ñi laaj ko yonent yonent wan leen ko ci kàttanu borom ndax lawoon si xaaqul xamari bisil baqaawal xidami la woon si xaaqul xamari bisil baqaa wal xidami sëñ tubaa neen ci kàttanug yàlla la ko xaree kon nag yonent bi bu demee bay xar weeru loolu ci kàttanug yàlla yàllaa ci dugal loxom waaye bu ci yàlla génnoon loxom kenn du ko xottil kon du mën a xotte ko moo tax kon bisil baqaa baagoog ngay baagoog ngay bàyyi xel bisil baqaa wal xidami moo tax kon gis nga wa in yaraw ayatan doo waaye nag bañ ko ko laajee itam dañoo waxoon ne dañ gëm waaye bañ ko gisee itam ñu ne lii ak njabar la dañoo foog ne njabar la goo xam ne moo ko karee wa yaquulu haazaa sihrun mustamirun mu ne musaliman mbir moom muy aji dolli wóolu moom yàlla aleyka ci yow bil ikraami ànd koog ti ànd koog tiranga filaali ànd koog say ñoñ wa sama bi ak saabaam yëpp waaye nag bi leen siraama ci lu ak dog mu ne yàlla moom nga xam ne moo julli ci yow maa ngi sàkku ci yàlla mu julli ci yow yàlla mi nga xam ne moo digle ci boppam ñu xenc sa yoon wi te mooy yoonu sunna yàlla moom na dolli ba tey ci yow ànd koog ay tiranga waaye nag tiranga goog na ñëw gannaaw ba nga xam ne sott na ko ci sa kaw na ñëw ba ci say waa kër yëpp ak say sahaaba yëpp waaye tiranga yi la ñuy bëri bëri bi leen siraam ci durul ak dog moo tax mu ne moom yàlla musalliman mbir moom muy aji dolli woon alayka ci yow ci sa kaw bil ikraam ànd koog ay tiranga filaali ànd koog say ña ànd koog say bi ak say saaba yëpp waaye tiranga yi bilan siram ci lu dul ñuy dog wa xafaraata mu far moom yàlla bi ka ci sa daraja jumlatu sunu bi mboolem samay bàkkaar moom moom moom sunu borom tabaaraka wa taala yàlla far samay bàkkaar yëpp yëpp yëpp waaye ci sa daraja moo tax mu ne wa xafaraata mu faraale moom yàlla bi ka ci sa bi mboolem samay bàkkaar waaye nag waa kafaaraata mu kafaare moom yàlla kulluma lépp loo xam ne alee gàlloon na sama kaw ci ay xaq ci ay bakkaar yëpp xan nii mu wëllis ma loolu yëpp mu kafaara ko dàqewaale ko mu sëri ma man jëmi sëriñ Tuubaa mu ne moom yàlla gannaaw ba mu la defalee ba noppi na ma jéggalaale ci sa daraja mboolem samay bakkaar waaye nag lépp loo xam ne gàlloon na sama kaw ci ay bakkaar ci ay xaq doomu aadama lépp yàlla na ko faraale kafaaraal ko génn ko ci man ba mu seet wicc yaa Moustapha yaa Muntaxa yaa Mujtaba salaam aleyka man hadaka wajtaba yaa Moustapha woo naa la yow yonente bi ñu tànn ki yaa muntaxaa yow ku ñu tànn ki ba tey yaa mujtaba yow ku ñu tànn ki ba tey salaa yàlla na doolu xiwoon aleyka ci yow man yàlla mi nga xam ne hadaaka gindi na la wajta baata mu tànn la ca tànn waay ba mu ne yow mi nga xam ne yaay Moustapha yaay koo xam ne dañ koo tànn nii rek waaye yaa muntaxa yow yaay koo xam ne ku seet wicc nga yaa mujtaba ba tey ci turam yi la ku ñu tànn lay tekki sala yàlla dool xon alika ciow man yàlla mi nga xam ne xaddaaka moo la gindil boppam waaye wàcc tabaat tamu tànn la nga xam ne yàllaa ko tànn ba noppi jiital ko ci mboolem nit ñëpp waaye ba noppi na kii kat aboro yu waay la xat kaana lakuma iswatun hasanatun kon suñu borom moo joxe exemple n kii iswatun hasana la muy royteef la woo xam ne xudwa la boo xam ne royteef la woo xam ne wu rafet la te képp ku ko topp da nga waaye yàlla moom musliman mbir boobu muy aju dolli wul aleyka ciow fil ali ànd koog say ñañ alkiram ñi di nga xam ne ay sang lañ wa qaadatam womat moom yàlla lii ñen ne mooy sama càkkutéef mu ne yàlla moom mbir moom muy aju dolli wul ci yow waaye nag ànd koog say ñoñ ñi nga xam ne ñu tedd lañ waaye ak say sahaba ñi nga xam ne ay sang lañ waaye nag tam womataaleen ma li nga xam ne moom laa bëgg lépp di ko sàkku lépp gannaaw ba nga xam ne yàlla julli na ci yow te mooy salaatu wasalaam rek waaye nag mu ñëw ci sa waa kër ñi nga xam ne ñu tedd lañ nga xam ne loolu bu ko waxee tagg na leen ak sahaab ak say sahaaba ñi nga xam ne ay sang lañ waaye nag ma womatal lépp loo xam ne moom lay sàkku mën jëmi sëriñ bi ba ñu del siwaat